Euh, Mbathio ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay baax chéri. Euh, ñu gis la ci spectacle Pape Diouf nga woy fi lu neex ban relation nga am ak Pape Diouf. Pape Diouf de sama mag di sama xarit. waaw tey nag bu organisé bu sumee dañu koy wax méga enjoy dañ koy jàppale moom fu mu nekk Pape Diouf fu ñu nekk dañ ko fekk dafa nekk nit ku baax. nit koo xam ne amul façon jabaram baax tam bëgg ma mu nekk loo xam ne lu yàgg la kon tey bu organisé lu mel nii dama ciy teew defar ba mu baax incha allah. Euh, Mbacke ñu daan la gis ngay fecc léeg-léeg nga jóg euh, dugg ci ci woy changement boobu du mu demee noonu. waaw sant yàlla rek ndax xam naa kuy jaay benn ñaan nga yàlla jaay fukk noonu la rek ne àdduna moom boo ci nekkee da ngay rêvé nee nañ lu osé rêvé kon da ngay rek yàlla baax na loo nit moom loo sabab rek yàlla jàpp la ci loolu la rek te ñoo ngi ñëw yéen ngi ñu bees incha allah. Euh, ñu gis la nga génnee bi mu mu mu neex trop après single bi Mbacke am na yeneen projet yu muy def wala album wala ay waaye album mu ngi si yoon bi incha allah du yàgg dara incha allah ci kàttanu yàlla di ngeen gis lu bees dàq ci kàttanu yàlla. Euh, sur le plan international est ce que ñoo ngi xaar un gis mbaat yu muy tëgg. incha allah nee naa la osé rêver rek xaar leen daal man daal ay surprise rek laa leen amoon ndax waa Sénégal ñoo ma bëggal seen bopp dëgg neexul lu ma def neex na leen lu ma wax neex na leen kon dama leen di bett ak ay surprise tout le temps dëgg.